رجائي رفع الدين والسنة التي تجاهلها الأقوام في كل قرية قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى سعيد عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما كيف كي جلد na nga taxoog dégg ndigal ak topp ko bu buuru jullit diglee toppal lam la digal bu la neexee ak bu la naqadee fekk duut mooy yàlla nag bu diglee mooy yàlla nag mbindeef duñ ko topp mukk ci loo xam ne mooy borom bi la yàlla gën a xëy ci ñëpp bu diglee mooy yàlla nag kooku ko kenn topp <coughs> Sidina Omar ba mu faloo soo taxaw ci mbar bi ne sant naa yàlla mi ma teg ci seen kaw yéen ñëpp léegi maa ngi leen di laaj ndax lu ma leen digal da ngeen ko def lu ma leen tere ngeen bàyyi ko saaba ya tontu ko ne ko feeg yaa ngi digle lu ànd ak topp yàlla di tere mooy yàlla ñu di la topp mu ne bés bu ma leen digalee lu wuuteeg li yàlla digle nag ak yonent bi mu ne ko bu keroogee nga xam bu keroogee ñu jubbanti la ak suñuy jaasi mu ne sant naa yàlla lu ma fal ci biir nit ñoo xam ne su ma moyee ñu jubbanti ma seen i jaas <coughs> ay bilan saar yeneen daf ko faloon ci njàngal boole koo kii nit ci saaba yi ne leen topp leen ko nag lu mu leen digal na ngeen ko def lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi ñu dem ba ca yoon benn bés nag mu mer mu ne yonent bi dafa waxoon ne lépp lu ma leen digal ngeen topp ko lu ma leen tere ngeen bàyyi ko ñu ne waaw mu ne dem leen taxani ñu dem taxani indi jër mu ne taal leen ko ñu taal ko ba mu nekk safara mu ne dugg leen ci <clears throat> ñu taxawaalu deng deng benn waaye ne ko duñ ci dugg ñu ne yonent bi sax mucc ci safara taxaw ñu di ko topp waaye dugg safara taxutoon ñu di ko ñu di ko topp lànk nañ bañ wàññeekoo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wax ko ko mooy leen jubal ngeen moom moo juum waaye ngeen ca duggoon dootu leen génn safara mukk laa dina mbindeef duñ ko topp lu mooy ci lu neex yàlla رجائي رفع الدين والسنة التي تجاهلها الأقوام